docteur Assane Diop euh, ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. yow yaay secrétaire euh, général syndicat des pharmaciens privés du Sénégal tey ñuy waxtaanee lu ñeel faux médicament docteur lan mooy faux médicament. waaw euh, ci mbirum pharmacie ak OMS e ak fu nekk. Mhm. li ñu jàpp faux médicament mooy garab gi nga xam ne. génn na ci yoon bi nga xamee ne moom la ñu sàkk médicament war ci jaar ba buñ ko defaree ba buñ koy jox nit mu koy jëriñoo maanaam bu dee ñun secteur bi nga xam mooy secteur privé mhm. ci defar garab bi grossiste central d'achat bi la koy jox mënul jaar feneen mhm. wala mu jaay ko directement grossiste bi mhm. grossiste bi bu jëndee ci laboratoire bi wala central d'achat bi moo koy dugal ci Sénégal pharmacien bi jënd ko ci moom pharmacien bi nekk ci pharmacie yi ñuy bi jox ko ci koy ki koy utiliser mhm. donc képp ki nga xamee ne génn nga ci circuit boobu mhm. wala garab bi bu génnee ci circuit boobu rek faux médicament la boobu benn la mhm. beneen bi mooy garab pour nu jaay ko Sénégal ki ko defar wala ku koy représenté dina ñëw wax Sénégal kat bëgg naa sama garab ñu jaay ko ñu ni ko pour cela dañuy seetu garab bi ba pare indil dossier bi indil bi indil bi bu indee loolu yëpp ñu saytu ko ba mu dal xel ñu xam ne soxla nañ ko ñu jox ko de mise sur marché donc garab bu amul loolu rek boo nekkee biir Sénégal faux médicament la garab aussi bi nga xam ne xamuñ fu ñu ko defaree te bi dugg ci réew mi contrebande la fraude la fi duggee boobu tamit day dugg ci mbirum faux médicament mhm. donc ak yi nga xam ne moom c'est les les vrais faux su mu ko mënee tudde noonu mooy ñi nga xam ne ñu ngi làqatu defar ay garab di ko jaay ci circuit illicite bi maanaam kër sëriñ beeg mhm. marché yeeg yu demee noonu docteur Assane ndax faux médicament day rey. faux médicament effectivement dafay rey. ndax bi ñu seetee faux médicament yi bari mun parce que dañ ciy jàpp yenn saa yi di analyser fekk nañu lu mel ne ay posonu janax. ci biir faux médicament. gis nañu arsenic ci biir faux médicament gis nañu ay mercure. am am na bu yàggul ci benn dëkk Afrique bëgguma ko tudd am na sirop bi ñu fa doon jaay sirop saqat. mais bi ñu seetee ne xale yi bari dañ ci ñàkk seen bakkan bi faux médicament dafay rey hmm. Sénégal gi ñu nekk sax wax nañ ci ay cas yi nga xam ne am na ay faux médicament yu rey nit wax nañ ci dëkk bu sell bi nga xam ne Touba nit jël na faux médicament teg ci ay waxtu euh, jàmbat métit gaañu hmm. donc effectivement faux médicament dafay rey hmm, d'accord ndax faux médicament mën na faj docteur waaw bu ñu waxee faux médicament rek mën ñu ko dëndale ak faj d'accord ndax faux médicament war ko sax jëfandikoo pour faj te système bi ñuy faje Sénégal dafa génne faux médicament mm-hmm. kon nag bu ñu nee faux médicament rek mun mëntuñ fekk mëntuñu wax mbirum faj ci ci wetam faux mm-hmm. médicament du faj mm-hmm. docteur ci fan yu néew ñu génn am na ñaari pharmacien yi nga xam ne ñu ngi leen di cité waaye itam yoon teg na leen loxo jamono ji ci trafic faux médicament tey bu dee euh, réellement ñoom ay pharmacien lañ ndax euh, enquête bi mi ngi woy ba nëga wala est-ce que ñoom ay pharmacie ay ñu ngi bokk ci ordre de pharmaciens du Sénégal waaw xëy na dina jafe ma tontu ci tontu bu leer ndax man syndicat bi laa nekk maa koy jiite waa ordre ñoo ñu mën a wax ndax vraiment inscrire nañu ndax ñu ngi xam na leen ci ordre bi loolu xëy na ordre ñu ci mën a tontu mais euh, quand même am na ñu naqar am am am vraiment métti que suñuy naatangoo ñu mën leen tudd ci li ne mel ba yoon teg leen loxo lu ñuy métti du la vraiment gënaluñu nag bu doon suñu sago. Mm-hmm. Euh, kenn du ci dégg pharmacien si mbirum euh, garab yu bon yi. d'accord yow lan moo nekkoon sa sentiment bu njëkk ba nga déggee ñaari pharmacien bokk nañ wala ñu ngi leen di tudd ci trafic faux médicament nu mu la def waaw euh, pour ñun syndicat des pharmaciens privés dañoo jëkk préciser que ne lépp daanaka si ñun la jóge ndax ñun ñoo seet seet ba gis ne société bi euh, boobu ñuy wax noonu mu ngi jaay ay garab te moom waru ko jaay. Mhm. moom li mu li ñu ko yoon may mooy mu jaay ay li ñuy tuddee dispositifs médicaux. Mhm. maanaam ay seringue ay masque ay gants bien que bu la ko yoon mayee sax yooyu am na aussi du la yoon teg ba nga war ko indi ci dëkk bi ci yoon conserver ko fi nga koy denc nga denc ko ci yoon yu gën pour que nit ñi bu ñu koy jëriñoo ñu bañ ci am loraange. Mhm. donc mais xamoon nañu ne xëy na bu demee kenn du mucc. parce que nag aussi booy traqué lu bon aussi doon ni ah parce que am naa ci ay pharmaciens rek du ma ko xeex déedéet képp ki nga xamante yaa ngi def lu dul yoon syndicat bi moom mu ngi ànd ak yow te bu xeex jotee tamit dañuy xeex ndax li ñu a jóg mooy population bi bañ ci loru. Mhm. dëgg la nag waxoon nañ ko sànq gënaluñu ko ay pharmaciens ñu tig leen ci. Mhm. te bu doon suñu sago aussi seen responsabilité buñ ko leeralee dinañ xam ne ñoom duñ trafiquants yi. Mhm. société bi recruté woon na leen parce que société bi dañ ko jox autorisation pour mu indi ay dispositifs médicaux mhm. yoon ni ko da am pharmacien mu recruté pharmacien mhm. mais jàpp nañ ni pharmacien bokkuñu ci trafic bi di ñoom ñooy trafiqué ay garab wala ñoom ñoo ci dugal garab yu baaxul yi d'accord Euh, docteur Assane Diop euh, yéen yàgg ngeen di xeex euh, ngir faux médicament yi jóge ci dëkk bi waaye itam li di garab yi nga xam ne ñu ngi koy jaay ci mbedd bi euh, tey euh, ñu dégg ñaari pharmacien ñu site leen ci trafic faux médicament est-ce que tey askan wi du ñu tiit dem ci pharmacie yi ngir jënd garab. waaw li nga laaj am na solo. Euh, te daf ñuy tax sax ñu gën a dalal xelu population bi. Mm-hmm. que bu ci kenn am loo ci bu ci kenn am loo ci yaakaar. Mm-hmm. pharmacie yi nañ doon liggéey la ñuy léegi eggali liggéey ba tey. Mm-hmm. amul benn pharmacie bu am sañ-sañ jënde garab feneen fudul fi ka yoon sant. fi ka yoon sant nag mooy ñeenti grossiste répartiteur yi nga xame ne xam nañ leen muy Laborex di Diopharm di Udipharm ak di Sodipharm. pharmacien bi soxlaa garab foofu la koy jëndee. parce que ñooñu aussi xam nañu ñun ñuy jënd yëpp fan lañ koy jaarale yoon tax xam na ko bu baax a baax ba tax na amul benn risque mm-hmm. société bu mel ni bii ñu jàpp nii benn pharmacien amul sañ-sañ daf di ko jënd ci ay garab mm-hmm. médicament au vrai sens du terme mm-hmm. maintenant mën nañ ko jënd nag seringue mën nañ ko jënd bande mën nañ ko jënd masque mais garab bu nit di jëriñoo waruñu ko fa jënd te duñu ko fa jënd donc dalal xel nit ñi koy pharmacie yi nañu garab yu wóor moo fa nekk garab yu baax moo pharmacie euh, bokkuñu ci du tout amul benn pharmacie bi nga xam ne tey jii am na sañ-sañ def jënd bi foofu garab. Mhm. Euh, docteur Assane euh, tey yàgg nañ di wax foo médicament fii ci Sénégal nekkul guléet ngeen yàgg di ko xeex itam ba léegi amul yenn jéego yi nga xam ne jot nañ ko fi te est-ce que yaakaar nga bés dina ñëw kenn dootul waxat waxati faux médicament fii ci Sénégal. waaw am nañu yaakaar ni loolu dina am ndax xeex bi. buñ ko eggalee xëy bu yàggee nit ñi conscient suñu autorités yi surtout sax jël si ay ay ay disposition ndax nag euh, ñu ngi tàndiku ñaari at ci ginnaaw biñ fi bàyyee Amadou Wuri Diallo te jàppoon ko si trafic de médicaments président recevoir oon nañu moom si boppam jëloon na ay engagement ñun ñu ngi koy fàttali nag engagement yi ba léegi ñu ngi xaar waxoon nañu dina jël ay mesures fortes jëmale ko ci marché bi maanaam tëj kër sëriñ beeg yu ni mel parce que nag kenn mënul comprendre que bu ñu nee am na société bi jaay garab yu bon ñu gaaw sawar lool ba pare ñu ne kër sëriñ bi mi ñu koy wax ay fukki at nii ñu bàyyi ko fi mm-hmm. li bëgg nag mooy nii ñu cawarte bi ñu wane léegi bi ñu wane fan yi ci mbiru euh, dayko bi mm-hmm. ñu def ñu wane même sawarte ci yeneen fépp ci nga xam ne ñu ngi koy jaay garab yu bon yi mm-hmm. donc am nañu yaakaar maintenant président jël na engagement ñu ngi xaar am nañu yaakaar ni moom bu ko waxee tamit mooy am na bëgg na ko def te dina ko def ñu instauré na ay ministre aussi pour ñu def ko. Mhm. am na nag aussi benn acte bu bu ñu posé bu dalal loon suñu xel. Mhm. mooy Sénégal pare na pour ratifier la convention Médicrime. Mhm. maanaam criminaliser la euh, le trafic des faux médicaments. bu ñu ko criminaliser nag juge yi dinañ am maintenant suffisamment euh, d' argument pour peine ñu durcir ko. parce que nag bi tax gars du ñu découragé mooy ba tey ku ñu jàpp ne indi lu toll ci milliardu garab yu bon. ñu ni dañ lay tëj ñaari weer wala benn at amende la ñaari million ñetti million mais kooku taxul kenn bàyyi mhm. mais buñ ko criminaliser nag mu mel na ku rey doo bakkan ku jël bakkanu doomu aadama la xëy na nit ñi dinañ ci xoolaat donc daal am nañ yaakaar que ne euh, lii dina jeex mhm. euh, te nag ñàkkuñu jumtukaay quand même pour pour jële ke fi parce que tey jii police gendarmerie douane ñoom ñëpp am nañu ay outils pour xeex su ma jéggalee ñooñu ministère de la santé mën na ci dara parce que tey pharmacien bi bu génnee du moom mooy décider ubbi pharmacien bi déedéet euh, ministère de la santé moo koy autorisé te bu ko autorisé par da koy topp. Mm-hmm. li tax nag pharmacien bi bu génnee amul sañ-sañ ubbi pharmacie keneen nag am sañ-sañu ubbi boutique am bind ci pharmacie. Mm-hmm. wala nekk ci diggu Dakar di jaay garab yu bon kon nag yooyu li ñu tënkee pharmacien bi mën nañu mën a aussi tere keneen nekk ci ci garab yu bon la waaw euh, docteur euh, ci yenn région yi fii ci Afrique euh, 60 ci garab yi nga xam ne ñu ngi koy jaay euh, daañu leen falsifié bu ñu sukkandikoo ci organisation mondiale de la santé euh, tey itam foo médicament nekk na activité bi nga xam ne euh, moo gën a dox tey est-ce que mun nga ñu wax ak assurance que. amul faux médicament suñu biir pharmacie yi. non loolu effectivement mën naa ko wax avec assurance. Mhm. amul faux médicament ci biir pharmacie. Mhm. parce que pharmacien aussi dëgg la xëy na daa ñu ah, am na ñaar ñu fi jàpp mais pharmacien bi dañ ko tàggat tàggat bi nga xam ne relation moo garab ne permettre ko yenn yi. Mhm. te aussi ni ñu organiser le secteur pharmaceutique ci au Sénégal dafa imposer pharmacien bi que ñeenti grossistes yi ma doon wax sànq rek la am droit jënd. Mhm. parce que pharmacien bi nag day am ay inspection inspecteur de la pharmacie dinañ ko seet si. Mhm. inspecteur du commerce dinañ ko seet si ak ñeneen. Mhm. te bu ñu ñëwee da ngay génne facture wane yow fan ngay génne garab amul garab bu ñu lay génneel ci pharmacie te amoo facture bi wane ne man fii laa ko jëndee. te bu génnee ñeenti ñooñu rek il faut nga justifié wu. te wax naa sànq même pharmacien bu bëggee importer garab parce que xëy na garab yi amagu fi autorisation sur le marché dafay jëkk la pharmacie jox ko autorisation spéciale importation. et c'est exceptionnel pour que mu mën dugal garab yi. mais mm. daal li mu la mën a wax mooy ci suñu pharmacie moom dalal xel ñëpp amul far amul garab bu bon amul faux médicament dans les officines de pharmacie au Sénégal. d'accord euh, ban procédure bu jaar yoon wala bu légal euh, le médicament war a am ngir dugg ci ab dëkk. très bien am na solo médicament déjà bu ma jëlee Sénégal bi ñu xam médicament bu nekk balaa ñu koy dugal ci dëkk bi askan bi di ko jëriñoo. Mm. dafay jaar ministère de la santé. Mhm. maanaam direction de la pharmacie et du médicament. Mhm. wax dama bëgg man kat ngeen homologuel ma sama garab maanaam ngeen may ma a jaay ko Sénégal. ñu ngi la waa baax na mais da ngay indi dossier technique indi ay échantillon ñu analyser ko xool ko càmbar càmbar bu baax buñ ko càmbaree ba mu dal suñu xel. Mhm. mu bokk garab bi nga xam ne aussi population bi soxna ko ñu soog jox autorisation de mise sur le marché. kooku bu amee autorisation bi du moom mooy dugal ci garab yi déedéet. day mhm. dem ci grossiste yooyu ma la wax léegi ne leen am naa autorisation léegi sama garab mën ngeen ko dugal ci dëkk bi. Mhm. garab yi bu ko grossiste yi importé bu dee du garab bu ñuy defaree biir Sénégal bu ñëwee douane douane daf koy téye informé direction de la pharmacie leen garab yii di si na info direction de la pharmacie joxe ok wam ni d' accord douane soog koy bàyyi mu dugg. Mhm. et que bu duggee aussi dina ay contrôle yi nga xamante ba léegi direction de la pharmacie na ko def mhm. pour xool garab donc maanaam yoon boobu foofu garab jaar mhm. su ñëwee nag ci grossiste bi ñu sokkee mën jox pharmacien d'officine bi maanaam ci suñu pharmacie yi nekk ci biir dëkk bi ñu sokkee mën jox population bi donc noonu la garab di jaar mhm. du kenn ku nekk mu am sañ-sañ dugal garab man pharmacien bi sax aw ma sañ-sañ dem France jënd ay garab dugal ko ci réew mi il faut toujours mu jaar ci circuit boobu ma wax léegi. d'accord leer na euh, tey euh, lan nga jàpp ni docteur Assane Diop moom la ñu war a mën a def ngir xeex waaye itam dakkal li di trafic faux médicament ci suñu réew. waa li ñu ki war a def mooy déjà wax naa ko sànq euh, li fi nekk ci dispositif réglementaire législatif et autres ñu utiliser ko. Mhm. xam nga tey pharmacien bi man bu ñëwee di ma inspecter danaan ma génneel ma sa autorisation. est-ce que yaa ngi bokk nga ordre des pharmaciens est-ce que nga ordre et mm-hmm. kooku même chose bu ñu ko appliqué rek ci ñi ubbi ñëpp ñi ay pharmacien te duñu pharmacie wala ay personnes doog yooyu day yomb mm-hmm. xam nga tey kii nekk euh, benn dëkk ubbi fa boutique am bind ci pharmacie boo ñëwee nekk indi sa autorisation mun la aw mm-hmm. mais nga tëj ko loolu mën na nekk kër sëñ bi ñëpp xam nañ li fa la crime xam nañ ko mais li tax ki sàcc euh, ginaar biñ la jàppee yóbbu la fañ la war a yóbbu ki nga xam ne ñëpp xam nañ ni mi ngi fi def naka su noonu ñu bàyyi ko donc ñàkk ñu uti léegi nag leneen li ci des mooy kuñ jàpp aussi yenn saay daan yi daan yi du métti mhm. ba tax na day teel a génn bu ñu tartaralee daan yi parce que mhm. foofu lañ jëm avec la convention Medicrime avec la criminalisation bi ñuy laaj mhm. nit ñi dinañ gën a découragé parce que gis nañ ci quand même ñu dugal ci milliardu garab nga ne ko dafay tëj ñetti weer euh, amende la tuuti ay deux millions trois millions donc pour man Hmm. nañu am volonté politique maanaam ñi ni ñi yor état Sénégal nañu am par parlu décision ne dañuy fi jëlee garab yi suba ñu jëlee ko hmm. parce que police gendarmerie douane ñëpp mën nañ ci liggéey direction du commerce mën na ci liggéey euh, direction de la pharmacie ku nekk en fonction yow li la yoon may boo ko jëfandikoo wee rek euh, affaire bi jógee fi. merci beaucoup docteur Assane Diop. je vous en prie. Rewmi FM mu lay sant di la gërëm di fàttali yow yaay secrétaire général wala président euh, du syndicat national des pharmaciens privés du Sénégal.